asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. li nga ko waxe euh, sëriñ fallu ak xidma muy liggéey euh, sëñ Fallou dafa wane yoon wi dama wax ne moo xàllal yoonu muridi ci ci ci ci loolu ñuy wax xidma ndax euh, ab taxawaayam ci liggéey gannaaw yàlla moo tax jumaay sëñ Tuubaa ji taxaw ndax ñëpp xam na ne sëñ Fallou dëkk yim sanc mën naa ne boo xool mboolem njabootu Serigne tubaab moo ci ëpp ay dëkk yu sañc te dëkk yooyu yëpp la taxoon mu sañc ko objectif mooy di fa liggéeyal sëriñ Touba loo xam ne da koy jël di ko di ko def ci liggéey Serigne Touba bi muy jumaa ji ndax liggéey jumaa ji rek moo ko ñoroon dëkkum Serigne Touba bi rek moo ko ñoroon dégg naa daf daan wax naan ñett rek ma soxal muy sëriñ bi liggéeyam bi ak dëkkam bi liggéeyam bi jumaa jaa ngi ci taxawal dëkk bi lépp a Ah, ci sëñ Fallou ak xidma ba tey it euh, jumaa ji firnde la ci ndax ku ne xam na ne Cheikh Moustapha bi mu ko tàmbalee ba agsi ci moom gis nga sëriñ Fallou lim ci liggéey lu jiitu loolu it ku ne xam ne ne wax nañ ne sëriñ Touba biñ koy indi fii ci tuubaa muy ñibbisi fii ci Touba booba ñaari kër fi nekk kër gu Daaru Xuddoos ak kër gu sëñ Fallou ak yenn kër yi ku mel ne ay kër sëñ am suñ jaxate kër yooyu nga xam ne bëri wutoon moo tax bi nga xamante ne bii Cheikh Moustapha nekk na fi ba jóge fi ci la Cheikh Mamadou Fadal daal di jóg nag lim njëkk li ko njëkk a ñor bokk na ci mooy jumaay Touba ji li ko njëkk a ñor bokk na ci mooy dëkkub Serigne Touba bi naka la koy mën a valoriser ndax wax nañ lu ma leen xamal ne toujours Touba maanaam deuxième capitale mouridisme moo nekkoon Njaareem mën naa ne Serigne Fallou moo valoriser Touba tey ba tey Touba di capital première capital ville mouridisme bi. muy bi nga ci leeral na bi bi bi Cheikh bi Cheikh Cheikhul Khadim mi ngi koy indi ci Touba boo wax nañ ne kër yëfe ne mën nañ leen a waaye daal ñaari kër daal ràññee nañ ko muy kër sëñ Touba gi bi nga xamante ne bi nekk na Serigne Touba objectif am mooy lan mooy jéem a valoriser Touba waaye valoriser nag lii nga xam ne sëñ Touba rek loolu ko ñoroon bokk na ci lii yi ngeen dégg yëpp lu ko daan sëñ parce que booba jamono ji melutoon nii parce que lu ci ëpp ci nit ñi seen économie moo nekkoon am mbay moo tax fu yaakaaroon ne suuf su yaatu am na fa rek dafay daal di taxawal ay tool woo dongay tër bi ñu dem di fa bay ñu fa bay bu ñoree ñu jël ko def ko ci jumaay sëñ Touba ji moo tax dégg daf daa wax naan daara jum ci sanc da daa wax fekkee liggéeyal sëñ moo tax ma ma ma ma ma ko yàlla na barkeel waaye lu ci rax lu du liggéeyal sëñ Touba rek yàlla na mel mel na xorom ci loolu bi yàlla dogalee muy liggéey nekk ci liggéeyu jumaa ji li ci njëkk mooy Cheikh Moustapha ak njàmbaaram xam nañ ne jumaa ji bi ñu koy tàmbali munuñ te booba Touba amut aw yoon munuñ si ko woon a tabax taxawal te amuñu aw yoon wax matériel jumaa ji dana fi taxaw Cheikh Moussa waa ci njàmbaaram ak paseem ak jàmm ak ak taxawaay bu mat sëkk ci la ci lañ jëlee raay bi njaareem indi ko tuubaa waaye ñi ngi ko yemale woon foofu ñuy wax gaar bu mag di fa liggéey di jël matériel bu jumaa bu ñëwee bu ñu ko wàccee gaar bu mag murid yi yenn ko yóbbu ko ci jumaa ji bii Cheikh Moustapha jógee Cheikh Mamadou Fadal bi mu ñëwee li mu njëkk def mooy daa daal di jëlee raay boobu ca gaar bu mag indi ko ba ci gaar bu ndaw moom la ñuy wax naan gaar gaar gaar bu ndaw nga xam ne booba mook jumaay Tuubaa matu ko sax 500 mètres ngir gën a yombalal taalibe yi liggéey jumaa ji bi mu nekkee ci loolu diggante diggante 47 48 49 cinquante ku ne xam ne ne Tuubaa musta am aw yoon mu ne nag ab dëkk mënul dox mukk mënul avance mukk ci lu dul ne day am aw yoon taxaw ci Touba naam aw yoon ci diggante ndakaaru tuubaa ku ne xam na ne aw yoon wu naqari la woon nga xam ne booba euh, tëli bi ñi ngi ko indi woon ba Thiénaba foofu la yemoon Sëñ Fallu moo ko jëlee Thiénaba ba indi ko Touba nga xam ne diggante Thiénaba ba Touba ñu fi am aw yoon rek ci diggante Njaaréem yëpp grâce Cheikh Mamadou Fadal wax nañ ne 1953 lañ tàmbali liggéeyu liggéeyu liggéeyu liggéeyu tëli boobu ba 1957 tëli boobu àgg. ñu ko nekk ci liggéey jumaa ji bi nekkee ci liggéey jumaa ji ba ubbi ko muy le 7 juin 1963 suñ falu xam na ne ab dëkkit lu koy mën a développé mooy ay yoon ci la daal di doxewaat ngir ñu wut aw yoon wu jóge Daara Jolof mu toll ci 68 kilomètres ba Touba mi ngi ko mi ngi ko taxaw ci 1962 jëm 63 bi mu ci jógee it mu jëlaat yoon wii nga xamante ne bii tey moo jóge Kébémer jaar daar muuti ba ñëw Touba toll ci 92 kilomètres Sëñ Fallu mi ngi ko mi ngi ko taxawal ci diggante 1963 ba 1964. li gën a am solo nag ci ci ci li man li ma ci jàngate mooy lu li ñuy wax mbirum courant bi gis ñu bari xamuñu courant bi Sëñ Fallu mi ngi ko jëlee Ndakaaru la ko jëlee directement Touba nga xam ne dëkk yi fi jaar yëpp village yëpp tey am nañ courant grâce grâce à Cheikh Maodo Fadal kon loolu mooy liggéey Sëñ Touba loolu mooy xidma Cheikh Fallu li ñu wax naan. sëñ Fall dafa nekkoon ko xam ne li tubaab di wax visionnaire la maanaam da doon naa ne valeur maanaam Touba tey valeur bu mu am ni tey ginnaaw yàlla Cheikh Modou Fadal ndax Touba fi ne àgg na ci mooy deuxième capitale de l'habitat du Sénégal nga xam ne ginnaaw Ndakaaru Touba moo fi nga xam ne mën naa ne infrastructure yi nga xamante ni mooy am solo te xam ne benn dëkk mënul développé sans yooyu yëpp Cheikh Fall Sëñ Fallu moo ko moo fi ñu toppiti lu mel ne marché ocas ku ne xam ne ne marché bi mi ngi marché Ocass Euh, fi ko suñ sëñ Fallou moo ko taxawal def ca lam ca def tey gis nga fi mu toll marché Mbàkke Bawol sëñ Fallou moo ko taxawal gis nga lam ca def ba ni mu toll tey kon mu wane ne xidma Cheikh Modou Fadal mën naa ne tubaa daal lépp loo xam xamante ni lu fuy lu am solo loo xamante ni bii luñ mën a dut baaraam la ca jàmm diggante diggante 1947 ba Cheikh Modou Fadal ni mu fi jógee mais 1968 mën naa ne boo ko xoolee Cheikh Modou Fadal la kon nag pour wane leen sëñ Fallou xidma boobu bi nga laaj léegi ci ci li nga gis mu mu mu mu mu mu indiwaat leneen loo xam ne mën naa ne moo moo moo moo mooy suuxat dëkk bi mooy suuxat waa dëkk bi mu muy muy màggalu Touba ndax màggalu Touba dama ne aspect aspect yi dafa bari aspect religieux dafa am aspect économique aspect religieux mooy kat xam na ne ni ko waxoon nag Serigne Touba lépp loo koy defal nga di ko defal ci wetam moo ëpp mooy ëpp daraja moo ëpp barke comme ni mu ko waxoon moo waraloon bi bi mu toogee mu woote màggal Touba waaye boobu. ci la ci la yàlla dogalee mu xalaat ci njëkk a limal muy ne ab dëkk mënul développer sans maam yoon moo indi fa yoon ab dëkk mënul développer sans am ndox mu indi fi ndox mi forage yi ñaari forage la fi njëkk indi te boo wax nañ benn tubaab moo ko ko mayoon bu njëkk bi mi ngi ko mu mi mi mi mooy bu Daaru Manaan bii ndax booba dane Daaru Manaan ak Touba ak Daaru Salaam sorewuñu léegi nag bu ko bu ko bu ko buñ ko defee Daaru Manaan waa Daaru Salaam danañ mën a am ndox waa Touba danañ am ndox bu ñaareel bi mooy forage boobu ngeen gis mu nekk Daaru Muxti Sëñ Fallu moo ko fa def donc muy ndox mi muy courant bi muy yoon wi lépp Sëriñ Fallu moo te booba jamono yi mu ko fi def mu nekk jamono yu conteste bu difficile waaye xelam mu yaatu ak ak bëgg ba ak xëram ci tax yooyu yëpp mu taxawal ko tey ba tey ji mën naa ne Touba di Touba tey kon nag sëñ Fallu moom defe naa ne mooy mooy mooy mooy Sëriñ Touba waaye sëñ Fallu mooy dëkk bi di Touba. sëñ Fallu moom cofeel gi mu am sëñ Touba man jàpp naa ne kenn amu loolu laa jàpp ndax. Euh, li koy firndeel mooy ku ne xam na ne bi mu jógee bi sëñ bi jógee bi sëñ bi ñëwee Touba 1927 1928 ci la ànd dem ci voyage màkk boobu ngeen dégg bu siiw boobu tam àndoon ca ak bàyyam bu ndaw ba sëñ maam Cheikh ak sëñ bu Bousso ak magi taalibe yu bari voyage yooyu diir bi mën na jatti weer ak ñaar fukki fan ak ñeent muy 3 mois 24 jours mais yëpp lu lu ci am ak lu lu mu ci def lépp li muy wax mooy def naa ko addee xaadim xaadim Cheikhul Xaadim kon loolu ak cooxel foofu la yem ñaareel bayit moo muy li ma wax ne sëñ Fall toujours da daan dàkk bëgg-bëgg sëñ Touba ndax sëñ Touba am na fu muy wax ne alayhi salli wa sallim bil jamia wa xuddi lil baxaya allasi ibtada ibnu mashun yàlla na ma yàlla woo ma ci jëmee ma ca pàkk ba nga xam ne ibnu mashun moo ko sañ bàqee nu mashun moom lañ fa njëkk a denc donc sëñ Fallou moo tax bi bi bi bi sëñ bi jógee rek mébétam bi njëkk mooy sëñ Tuubaa amoon na yéene dem màkk kon lu mën a xew danaa dem danaa dana danaa ko doxal loolu gis nga màkk ji li mu ca daj li wax na ñetti weer ak ñaari fan ak ñeent waaye lépp bi mu ko defee ba noppi li wax mooy lan def naa ko addee Seexul Xadim wax nañ ne baatu Seexul Xadim it Seex Maodo Fadal moo ko njëkk a wooyee Sëriñ Tuubaa kon foofu la ba pare bi muy jébbal boppam sëriñ bi it daf koo daf koo daf koo daf koo indil firnde mooy mooy lu mu bindal boppam yaayu Seex Nafiisu Murtada yaa fayateen maa xablu kaana Murtada bextu bi nu woytee bil irada lakum li koy asa bi xari xaada min baax li maa asaytumuha mi ni ahdaytuha lakum bi xayri man nin fal taqbaluha yaa malaasu karama laa siltuma bayna baraya alama bi jaay maxdukumil mu faddali xayran aw axir maana wal awali sala alayhi rabbuna wa salima wa ali wa sabi wa karama kon donc loolu firnde la ci ci ci ci ci ci ci cofeelum Serigne Touba waaye nag la ko ci la ko ci Serigne Touba tontu moom moo neex ndax ayat boobu nga xam ne sunu boom bi ma nga cay tagg ñi nga xam ne dañuy tëdd seen i lal ba mu guddi ñu jóg di naafi la ak ñaan yàlla ayat boobu la ko teg muy falaa taxlamu nafsun maa uxfiya lahum min xuratin ahyunum ko cay dolli nag yasurukum wa yanfawukum wala yadurukum abadan kon loolu wane na mbëggeelu Serigne Touba mbëggeelu mu li mu wax ne di wax nañ ne bi ñu ubbee jumaa ji la 17 juin bi ñu ubbee jumaa ji la 7 juin 1963 dafa wax ne wax nañ ne képp koo xam ne faatu nga rek bàyyi ngay mebet ñu ne ko waaw mbàkk mu ne man de amatuma mébét man de dootuma bàyyi mébét ndax man benn mébét rek laa ma sam sama àdduna mooy kër néegu yàlla bi ma ma liggéeyal ko Serigne Touba kon nag mat na amatuma mébét ci te loolu nag defe naa ne Serigne Fallou rek laa ma dégg mu wax kon nag bëggoon Serigne tubaa noonu lay lay bëggoon Serigne Touba it daf ko daan doxal ci ak njabootu Serigne Touba ak ñi fi bàyyi ndax daaw leen wax mukk daaw leen wax mukk lu daaw leen wooye mukk lu sama doomi Serigne leen daan wooyee bëggam Serigne Touba ak xelam Serigne Touba it àgg na foo xamante ne bi daawut jaa sax ci turu Serigne Touba borom baraab bi borom baraag bi ku tedd ki sëñ bu mag bi. moo yooyu rek la daan jëfandikoo ngir ngir ngir ngir ngir ngir di ko woowee ku tedd gi ngir xorma yoo xamante ne bi xormaloon na ko kon daal sëñ Fallou moom defe naa ne ñëpp maase nañ ci xam cofeel gi nga xam ne amoon na ko ci Serigne Touba ak bëgg gi nga xam ne bëggoon na ko ko ak yaakaar gi nga xam ne yaakaaroon na ko ak doyloo gi nga xam ne doyloo na ko ba léppam loo xam ne def na ko doon ci yaakaar ay ngëneel doon ci doon ci yaakaar tiyaaba Sëriñ Tuubaa ko daan jox hadiya màggalu Kazu Rajab moom xam ngeen ne euh, dafa wax ne màggal la goo xam ne jullit yëpp dañ ko war a màggal ndax dafa nekk dafa bokk ci histoire gi yoonu ci lislaam ndax ku ne xam ne ne loolu ñuy wax jullit te bu ñuy wax ab jullit jullee tax ci foofu la la la la soqi ko ndax ku ne xam ne sunu borom bi indi na ko ab ab suurat subhaanallazi asra bi habdi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa allasi barakna hawlo linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir kon nag euh, bis la boo xamante ni bii jullit yi fu jullit ne war na koy màggal ndax mooy bis bi nga xamante ni moom la sunu borom tabaraka wa taala invité woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ba mu demee yam ko jox bokk na ci julli yooyu nag tax na Cheikh Mouhamadul Fadilu yàlla def ko moom it mu wàcc ci bis bu tedd boobu looloo wala mu daan wax naan yonente bi dana lay mën a cëpp kon nag muy bis boo xamante ne bi jullit yëpp dañ ko dañ ko war a màggal bisu Kazu bi nag moom ci boppam daana ko màggal waaye ni mu ko daan màggale mooy da daan def da daan da daan da xëy dem fanaan yi Daaru Salaam bu ci jógee bu ñëwee yendu ci kër sëriñ Afi Ñang muy fii ci kër sëriñ Mourou Mamou Ñang bi mu yàlla dogalee nag euh, Cheikh Maodo Moussa Falil ci bëggam lu baax moom it ak xëram ci ci ci ci Cheikh Cheikh Maodo Fadal daal di koy sàkku ci boobu ne ko daa bëgg bis bii bu tee mu màggal ko ko suñ Fallou jox ko ci ndigal 1960 bi fi suñ jógee 1970 70 la ko la ko la ko Cheikh woote ñu koy màggal ñu ko màggal ba tey jàpp naa ne màggalu Kazu Rajab mooy deuxième grand événement plus grand événement de mouridisme wax jàpp naa ne gannaaw màggalu Touba moom moo ci moo ci moo ciy topp kon nag loolu mooy Kazu Rajab Kazu kër suñ Fallou nag ku ne xam ne ñun ay taalibe lañ ndax damay xam ne ñun sëñ Fallou moom dafa jaayoon ak njuróom jënd ko taalibe daaw daaw doxe aw sëriñ ak taalibe la daan dox comme noonu mu waxoon ne doonu noonu ma doonu ma doom ju bëgg a doonu baayam man ab taay doonu sax ab taay man lépp laaj sëñ Tuubaa damaa ko jox sama lépp nekk ci biiram loolu it nag moo feeñ ak njabootam ba tax na ñun ñëpp xam na ne waa kër sëñ Fallou moom ndigal rek la ñuy jëfe fu ñu toll looloo waral màggal gi bañ ko yëkkatee te mu toll ak ay contesté coronavirus bi bi sëñ Mountakha joxe ndigal ñu daal di koy teg suuf daaw sëñ bi laajuwaat ko ndigal mu joxaat ñu ndigal ñu tegaat ko suuf ren nag mu joxuñ ci ndigal ñu fas yéene ko màggal moo tax leen ren moom màggal prise la ñu def dama ne màggal daal yi ñu rawoon ñaar yi ñu rawoon yëpp la ñu boole ak bii bu ren bii màggal ko bu ñetti màggal kon nag jàpp naa ne bis la boo xam te jar naa ñëw waaye bu ren bii nag moo ci rawati kon nag ñu ngi éviter jullit yëpp Sénégal yëpp ñu nga xam ne ne bis yi ngëneel la bisu bisu tawféex la bisu bu barkeel la Cheikh Moussa Ka nag dafa am fu lu mu jeexaloon ci kaso bi nee na képp ku màggal bisu fajar ku màggal bisu kaso ba ba fajar booy dellu bu yàlla jéggal la ci barkeb fàllu kon nag barke boobu loolu yàlla ko suñu boroom dogal ci bisu Kazu Rajab gii. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.